bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xooleek alal du tee ñu xëy xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laaj teem yaa audu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan axiru zaman dellu siwaat nañu di àndaat ak yéen ci beneen jataay ci axiru zaman tey li nu fa yéene waxtaane mbokk yi euh, tubaab courtage sexuel la koy tuddee courtage sexuel buñ ko doon firil sama mbokk faana faana yi mooy koo xam ne lii liggéeyam mooy yombalal ñu bëgg a njaaloo seenu njaaloo mu nekk ci diggante bi di dundee yombalal ñaar ñiy njaaloo seenu njaaloo moo xam jigéen lay utal góor walla góor lay utal jigéen waaye daal moom ci digg bi ki bëgg njaaloo amul accès ca kam bëgg njaalool moom moo nekk ci diggante bi di ko yombalal am na kook da koy def rek ngir plaisir bànneexam amul lenn lu mu ciy gañee lu dul loolu waaye am na ñoo xam ne nii ci Sénégal gii métier lañ ko def métier te incha allah dinañ ci dugg léegi leeral lu tax ñu ne Sénégal ne métier ndax lépp loolu ngeen dégg rek ñu koy waxtaanee day fekk mu nekk lu ñu am preuve man cee dut baaraam soog di ko jël waxtaane ci li tax ñu indi thème bi nag muy courtage sexuel la xew ca Dubaay la ñuy jël dëppale ko li xew ci Sénégal ak fépp ci àdduna bi ndax la ngeen di dégg ca Dubaay boobu ba léegi yéen a ngi dégg ñiy wax a ngi ciy wax man nag en tant que Makhtar Sarr tegaguma sama bët ci video yi nuy wax tegaguma ci sama bët amaguma ci tamit élément yi ma soxla yépp dégg naa nag ñu baree ngi ciy wax moo tax mënuma ci xuus di ci waxee nañu cay waxee waaye mën naa jël loola ñu fay dégg ma méngale koog lu xew fii ci Sénégal ak fudul Sénégal indi nag thème bi jàngat ko ci biir chariatul islamiya ndax lépp lu ñuy indi mu nekk lu ñuy génnee lu bon pour wattandikuloo ko ña ko defagul la ak euh, soññu fàttali ña ca nekk ngir ñu bàyyi ko la ba tax na bu ñu indee thème bi danañu indi ci tex jigéen ak tukkeem lan la ci charia wax ndax may nañ jigéen rek mu tëb ne lay cëb tukki réew mu ko neex fu ko neex ci àdduna bi tomb la ci waxtaan wi charia fiir gi mu fiir diggante góor ak jigéen ba tere seen wétay tomb la ci biir waxtaan wi waaye kiy dundee alal jooju alalu njaaloo ki koy dundee ki nga xam ne métier mooy courtage alal jooju noonu lan la ci charia wax alal ji nga xam ne mi ngi juddoo ci njaaloo jëmmi alal ji jëmmi alal ji lan la ci charian wax yooyu yëpp incha allahu taala danañ ci dikk ki texte ci biir waxtaan wi di ñaan ñëpp dégloonu ay nopp xel bañ ñoo dégloo noppi xol lu jiitu loolu dañuy balu xàq mbokk yi nga xam ne ni yëpp ñooy seetaan aaxiru zaman koor geeg léegi ànduñ ceeg yéen li ko sabab mooy programme yu chargé ci koor gi ñu ngi jéggalu ndax ku wax daaw baren di nga jéggalu ña nga xam ne yaa ngi wax ñu lay seetaan ak déglu ndax niñ koy waxee dëgg la wax yombul wala fa koy wax wax yombul léeg nga wax ba am koo blessé te nga ko heure bu ma waxee wax jooju nag danaa fàttali ne bu dee dëgg la day kooku la ñuy ñaanal yàlla moom loolu doon ko belese dootu ko belese te mais bu dee sunu njuumte la nun la ñuy jéggalu kooku nga xam ne sunu njuumte la ko sunu kàddu belese di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekke déwén yàlla bum doon sunu mujj koor yàlla nañ ko woor weeru koor yu baree baree baree bari di fàttali rek benn kàddu wala genn kàddu gu bàyyeekoo ci menn mag muy maam Cheikhul Xaaji Malik ca xutbaam ba bokk na ca la waxoon ne bokk na ci màndarga yi wane ne sa koor nangu nanu ko mooy bi nu waree rek la nga doon def ci lu baax ci koor gi nga bañ ko dakkal waaye bokk na ci liy wane ne sa koor nanguwul mooy ñu wari rek la nga doon def ci lu baax yépp nga bàyyi ko ka doon muuruy julli ci biir koor gi ñu mu ñu wari mu lem kaalaam denc di xaar déwén day wane ne kooram nanguwul waaye ka nga xam ne nii la mu tàmmoon ci koor gi ci jaamu yàlla ak mbaax daf ko wéyal bi ñu wooree woor woree kooku mën naa xel mu dal ne kooram sunu borom nangu na ko loolu ñu ngi koy fàttali mbokk yépp ñu xam ne nii la waxkat ba waxoon ne man kaana yabudu ramadana fa inna ramadana qad inqada wala qad intaha wa man kaana yabudu llaha fa inna allaha hayyun la hayyun la yantahi aw ne képp kuy jaamu weeru koor na xam ne weeru koor jeex na waaye ku doon jaamu yàlla na nga xam ne yàlla mi ngi fiy dund moom du faatu mukk loolu nañ ci bàyyi xel bu ñu doon ramadaani yoon waaye nañu doon rabbaani yoon bu ñu doon ñoo xam ne weeru koor la ñuy jaamu yàlla waaye nañ doon ñoo xam ne ni yàlla lañuy jaamu jaamu gu dappati ko wa'bud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin loolu moo doon fàttali gi ci wàllu googu bala ñu dikk ci thème Euh, ñamale gi ñuy def ci ñaari yëf la te ñaari yëf yi mën na nekk genn wala lenn euh, ci àllarba ji dëppook fukki fan ak benn ci weeru mai ànd sàmm jikko yi euh, dajawaat na waxtaan ak sénégalais yi waxtaan ak àdduna bi gannaaw boo xamee ni am na kenn ci ànd sàmm jikko yi ba léegi rek dañoo jàpp ne génnul kuréel bi lu dul ci tur waaye pas-pasu bañ lu bon ak xeex ko mi ngi ko bokk ak kuréel bi ba tey muy professeur Cheikh Oumar Diagne yéen ñëpp yëg ngeen ne jamono yi yëpp mi ngi ci kaso bi ànd sàmm jikko yi nag ba mu dooree wala ba mu nekkee ci kaso beeg tey soutien musul musul deñ ci moom donte am na ay ruubekat noonu laa koy tuddee yu dugal ci xelu ñenn ñi ka ànd sàmm jikko yi dafa seetaan Cheikh Umar te tëddeewul noonu ku mu neex nag mën nga ko wax waaye ànd sàmm jikko yi buñ koy wax defe naa jëmm ji taxaw di Maxtaar Sarr xam na lan mooy ànd sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi du person du mennum Maxtaar Sarr du mennum Ababacar Mbuub du mennum uh, imam Babacar Sylla wala wala wala waaye ànd sàmm jikko yi mbooloo lañu dogal bi mbooloo koy jëlandoo première réunion bu ànd sàmm jikko yi ca parcelle ca siège ba la mbooloo mi jël dogal ne dañuy jàppale Cheikh kon ku mu neex nga wax lu la neex mais officiellement ànd sàmm jikko yi dafa nekk ci ginnaaw Cheikh daa fekk nag am na wu nit ñoo xam ne ni ñuy doxee ak ni ñuy gisee du dëppook ànd sàmm jikko yi ni mu miin a doxee ñooñu léeg-léeg bu ñu bëggee xëcc jëmee ci nañu gisee na ñuy doxee ànd sàmm jikko yi dana taxaw jàngaraat ba gis ni mu war a doxee mu doxee ko loolu nag jur na ñennat ci biir kuréel bi ñu influencé leen am ay wax yu nu wax waaye loolu yëpp nee naa sunu ginnaaw la nekk ndax bu ko ay boromi xel ŋànkutoon bu ko ay boromi xel séqutoon ñu jàpp Cheikh Omar Diagne loolu bokkoon na ci seen objectif mooy tas ànd sàmm jikko yi ndax danañ xam ne dana am ñu taxaw ne déet am ñu taxaw ne waaw mu nekk benn rëngi-rëngi gaa loolu tàmbali woon na jib waaye l'essentiel rek lañ wax ne lañ ci mujj dem mooy daal dañu koy soutenir ala kulli xaalin ànd saamu jikko yi nag du mooy tëjee ka tijji ànd saamu jikko yi yorul bërëb ba nga xam ne nii fa lañ ko yóbbu bu fekkoon ñoo ko yor du fa fanaan genn guddi waaye dafa am kenn koo xam ne nii luy tooñ jëme na ko ci ànd sàmm jikko yi luy kàddu yu bon yu ñaaw jëme na ko ci ànd sàmm jikko yi kooka moo defi pexeem jaay doole an am ñu ko ci jàppale ci jaay doole googu noonu le ci ñu nekk ci ginnaawam ba mu jël sew ma tëj lu ko ca kaso ba loolu jëmmi tëj googu noonu le engagé wul wala nekkul ànd sàmm jikko yi moom moo puus kenn pour ñu tëj ko wala ñu dugal ko fale mu nekk loolu defe naa leer na ci bopp yëpp li ci des nag ay taxawaay la te taxawaay ak ni kuréel bi bindoo ci yaatuwaay faaw xalaat yépp daje donte am na ñu ne woon jarul réfléchir jarul xalaat waaye ñi xamul kuréel beeg ni mu bindook ak ak réew mi nu nekk ak ni mu bindoo ñooy waxee noonu waaye ku ci nekk rek degré euh, tàngooram dañuy am yaatu bu dënn dégg dënn dégg ko ba tax na lépp luñ ci waroon a dox danañu ànd ak benn dal gi ngir dox ko du ànd ak genn yàkkamti gi ba toll ci foo xam ne nag lañ waroon a dajale ca la doon dëgg sërëx yépp ñu jël ndëgg sërëx yooyu yépp bu doon i kàmb la ñu suul ko soog di dajale ñi nga xam ne moom lañ war a takkewaat yépp ñu nekk benn ñu ne nag ñépp nañ dem ci vers l'essentiel gannaaw loolu ci la ànd sàmm ji koy dajee tey waxtaan ci agenda bi nga xam ne nii ñu ngi koy xeex booba léegi muy agenda LGBT yi loi bi nu dugaloon ñu bloqué ko ñuy wane ba tey sunu position mooy dañoo bëgg ñu voté ko élection législative yi ñëw ànd sàmm ji koy wane ci position ci kuréel beeg ni mu bindoo ni mu bindoo mënul dem ci ay élection en tant que kuréel bi nga xam ne day coordonné ay kuréel yu bari waaye du tee élection yii di ñëw ànd sàmm jikko yi dana def mémorandum yóbbu ko ci list yi nga xam ne nii ñoo ne dañoo bëgg a dem ca ngombalaan agenda boobu nag wala Cheikh Omar moomu ñu tudd incha allah ajjuma jiinu dëgmal kolikot nga xam ne nii kolikot ci biiram ànd sàmm jikko yee nga ca ànd sàmm jikko yeeg yeneen i kuréel yu ca dooleeku ñoo taxawal collective ngir di sàkku ñu libérer Cheikh Omar Diagne kolikot boobu noonu le ba mu juddoog tey fu nuy amalee daje ànd sàmm jikko yi teew na fa ndax fu ñu gis benn maxtar Sarr nekk fa wala ñu gis benn Ababacar Sylla nekk fa wala kenn ànd sàmm jikko yaa nga fa loolu na leer ci bopp sénégalais pour ñu xam ne kuréel bi ni mu bindoo ku nekk ca kuréel ba bokk ca njiit ya lu ñuy def bu nekkee ca biir ànd sàmm jikko yaa nga ca biir ci tomb bi nga xam ne ni moom la ñuy waxtaanee toll ci ba tax na tey ci point de presse bi wala démb ci àjj bi àllarba ji ci point de presse bi ànd Sàmm Jikko Yi mu ngi woowaat mboolem sénégalais yi vendredi ji ñu dëgmal ñu dem fële ca ndakaaru ca kuddu àndandoog ñi nga xam ne ni yépp ñoo bëgg ñu libérer Cheikh Omar doxandoo doxu ñaxtu Pacifique ba ca rond point bu Médina ak yeneeni Euh, dox yi nga xam ne ni yëpp gannaaw ba war na cee topp incha allahu taala ànd sàmm jikko yi mi ngi woo ñëpp ñu ñëw bu kenn jàpp ne da ngay toog sa kër rek ne yeen dem leen ak def leen déedéet mbir yi du noonu ku ne jàppal ne yow yaay ànd sàmm jikko yi ba nga xam ne doo xaar kenn boo waree jub doo xaar kenn boo waree dem waaye dafa am ñenn nat ñu mel ni Maxtaar Sarr léeg dañuy bëgg rek dem leen def leen yéen lu ngeen di xaar dem leen def leen te buñ ne jug leen yow du ngeen jug bu ñu ne ñëw leen du ngeen ñëw loolu tamit nañ ko génne génnee ci sunu doxalin nañu nekk ci kanamu mbir yi taxaw suñ mbokk mi ñu war a taxaw ñu xam ne nag du tey la bàyyi di dee ni ko wolof di waxee du mennum Cheikh Omar Diagne mënu jàppay tax ànd saa mu ji koy concentré wu ci loolu rek di ca wax ba fàtte ñoom la la ñu nekk loolu lañ bëgg te duñ leen ko may te loolu noonu xel ak i xalaat yu xóot mooy tax nit yegg ca xam ne li ñuy bëgg mooy sa énergie bi yépp nga continuer def ko ci Cheikh Omar Diagne ba fàtte agenda bale su ko defee ñoom ñu continuer di dérouler agenda bi xam ngeen ne agenda bi mi ngi dérouler ci lay daanele euh, Cheikh Omar danañu wan ay image ngeen xam ne agenda baa ngi dérouler bu yàggul ngeen gis ngóor soosu di Soros ñëw fii Sénégal ñu dalal ko ca pale ba di ngeen gis ay image Cheikh Omar nga wan nu ko kan mooy Soros nga xam ne ni mi ngi jiite kuréel bu mag nekk secrétaire ba euh, walla topp ca ka ko jiite kuréel boobu noonu lee ci ñi gën a affiché wu ci àdduna bi di jàppale góor jigéen ñi ci lañ bokk ba ci moom moom góor si ñëwoon ci pale bi image am yi ngeen di gis muy kottante góor ak di bokk ak moom di tëdd ci benn lal image yi rek day wax waaw image yi day wax mu ñëw senegal ñu yóbbu ko ci pale ba mu digge fii milliard pour dugal ko ci wàllu santé ak yeneeni secteur ah loolu am na lu muy wax ah, jëmm ji nekk ci kuréel bu mag boo xam ne nii bokk na ci li leen tax jóg mooy jàppale góor jigéen yi ngir ñu gën a am doole ngir ñu gën a taxaw jëmm jooju noonu le ngeen gis ko muy kontante kontante góor ñi nii damay bañ nag avancé ne na góor gi nangamam la waaye seeni xel rek na leen jox naka la góor mën a nekk di kottanteeg moroomu góoram nii di bokk di tëdd ci genn benn lal di tegantey tànk loolu lu muy wax borom nge xel ngeen yéen a koy mottali ngóor soosu moom lañ dalal fii ci mois de mai bii ci pale bi mu ñëw fii dige fii dige wax fii wax dal di dellu loolu yépp dafa dugg ci biir agenda bi nga xam ni nii moom mooy déroulé ba tey te xalifa généraux yépp ne agenda bi nañ ko dakkal sénégalais yi majorité bi ne agenda bi nañ ko dakkal ñu nu dénk suñu kàddoog sunu doole lank taxaw bañ ne duñu ko dakkal ba tax na kon taxawaay yi dafay gën a feddaliku rek su yeboon ak terme bu nekk nañ ko utiliser ay politiciens ngeen ak da ngeen di campagne ak da ngeen di politique élection yaa ngi nangam ak jublu seeg lu mu neex waaye rek na ko wax waaye bu dee lii mooy politicien nañ jàpp ne yu mag yaa ngoog bu dee bañ ngoor jigéen bëgg ñu daggal euh, ñu dakkal agenda LGBT bi moom mooy taxa doon politicien nañ xam ne politicien yaa ngoog waaw loolu na ci ñëpp bàyyi xel ba tax na kon ñu ngi wëyaat di euh, sàkkuwaat ak dakkal jëm ci li nga xam ne mooy agenda bi ca na mu gën a gaawee waaye di wéy di sàkku ak libéré jëm ci Cheikh Omar Diagne ca na mu gën a gaawee waaye di waajal loo xam ne incha allah wax nañ ko tey muy topp ki topp Cheikh Omar Diagne ci yoon moom it ñu topp ko ci yoon di xool yoon ban taxawaay la ci amal muy Jibril Waar incha allahu taala danañ yegg moom foofu bu soobee yàlla incha allah su ko defee loolu moo doon ubbi gi ñu dikk nag ci li nga xam ne nii moom mooy li nuy waxtaane mbokk yi euh, li ñuy waxtaanee mooy courtage sexuel euh, niñ ko waxee léegi ci njëlbeen gi mbir la moo xam ne nii ci mbir yi feeñ ci aaxiru zaman la bokk mooy aw nit ñu bëgg a def lu bon bëgg a njaaloo mënuñoo am accès ci kiñ bëgg njaalool am ku nekk ci diggante bi di leen doxal ngir yombalal leen ñu joti ca kanu bëgg a njaalool dañuy indi benn élément teg ko mu ubbi sunu waxtaan élément bi benn journaliste bu nekk Seneweb moo ko réalisé nekk journaliste buy gëstu ci ay mbir ci reportage bi mu dajeeg jigéen joo xam ne nii victime la wala moom la naroon a doon ci mbirum courtage sexuel mu nekk benn animatrice fii ci senegal duma jiitoogum élément bi damay bàyyi ñu déglu ko lu gudd la après sewma dinañu won ñàkkul lien bi ci Seneweb ngir ñi bëgg a topp élément bi mais ñu jël ci ay minutes rek nga xam ne nii danañu ubbil li ñu bëgg waxtaanee ñu soog di ciy dugg incha allah Chawman ñu déglu élément bi dellu si waat. waa euh, soxna si jërëjëf jël nga sujet bu am solo te te mu doon loo xamante ni ñu ci bari ñu ngi ko dund te duñu ko wax euh, ni nga ko waxee noonu sax noonu la amee parce que nag euh, bari na léegi ci ñoo xamante ni loolu mooy seen métier rawatina góor ñi tey bari na amaana góor ñu bari ñi nga xam ne yaa ngi leen di gis ñu nekk ci koñ yi. doo leen gis bëccëg ngoon nga leen di gis ñu ngi yor seen oto yor seen kër yor seen caabi yor seen leneen ci loolu la ñuy dundee ci loolu la ñuy liggéey lu ci bari nag mooy système bi dañuy daal di liggéey ak ay kilifa yu bari ndax léegi lu ñu ràññeente mooy idem ko góor ñi ak jigéen ñi dañu am relation yu am solo ak les hommes politiques et les entrepreneurs ñi nga xam ni moom la ñu tuddee ñi am borom teraanga ci réew mi. te seen relation yooyu toujours relation de complicité lay doon ba lépp li nga xam ne ñoom mënuñu ci jotee ñoom ñoo leen koy jotaleel mais nag nekkul loo xamante ni dañ koy def gratuitement dañu leen di fay euh, am na ci ñoo xamante ni numéro jigéen dañ koy jaayee cent mille francs ñenn ñi di jaaye numéro deux cent mille francs ngir rek nit ki mën a nekk en contact ak ki nga xam ni jàpp na ni moom bu defee wala bu jugee Euh, dinañ ko mën a ràññale ci turam wala ñu mën ko teel a ràññale ci li nga xam ne euh, jëf jooju da ko doon làkk muy doon ay jëfam yu muy def ci suuf tey euh, man mi di wax ak yow gis naa ñu bari ñoo xamante ni dund nañ ko gis naa aussi ñu bari ñoo xamante ni rawatina ci ay góor lu ci ëpp moom la ñu nekk tey dañuy xaritoog yow dajeeg yow ci ci milieu wala ci dara jël sa numéro bu yàggee ñu jékki ne la yónnee ma sa photo may statut la buñ la statee xam nga euh, xool dangaa rafet dangaa ngaa jong ma dangaa ngaa nàngam ba mu neex leen ñu ne la man de dama am sama benn xaritu tel ministre la wala député la wala mooy chef d'entreprise tel euh, daf la gis sama statut nga neex ko fekk moom ci suuf jaay na sa numéro bu yàgg ci suuf wax na ak moom bu yàgg dafa bëgg nga dem bureau wala dafa bëgg ngeen daje lieu tel wala dafa bëgg ngeen daje place nàngam léegi yow soo demee da ngay jàpp ni peut-être daf la daf la bëgg rek wala daf la sopp wala dafa dafa dafa daf la gis nga neex ko da ngay jàpp ni loolu rek moom mooy moom mooy but bi fekk wax na ak ku góor ki bu yàgg euh, ba ba rendez-vous sexuel lay doon wala mu doon rendez-vous boo xamante ni euh, wax ji sax du mën naa bañ a bari parce que ñoom xam nañ leen leen tax a jóg mais malheureusement peut-être ku góor ki du la du la wax li ci nekk yëpp ba nga dugg ci piège bi. yow da ngay jàpp ni da ngay dem en rendez-vous pour xamanteeg nit gisanteeg moom peut-être waxtaan ak moom su si dara war a xew ma xew ci wala su fekkee da ngeen war a am relation amoureuse ngeen am ko wala débuter benn relation mais da ngay dem euh, à ta grande surprise nit ki di la wax nii man sa numéro dama ko jënd en tel cent mille deux cent mille ba trois cent mille te lii taxoon ma ma jënd ko pour gisanteeg yow wala sekk ak yow dara donc su fekkee nag nga doon jigéen boo xamante ni tey. pour nga am trente mille wala cent mille sax problème la mën nga ci dugg nga fexe dugg ci piège bi nga dugg ci encre ci ba après tôt ou tard da ngay dem ba xam ni euh, dugg nga ci loo xamante ni xamoo ko te mu trop tard et dund naa ko man sama xarit euh, boo xamante ni déjà dafa am site internet euh, da lay defal ay article defal la ay ay vidéo dugal la communauté YouTube et cetera nekkate biom du lenn du dul jaay la ñi nga xam ni ñoom ñoo koy seetaan donc su su su day jékk benn jour rek ne ma yónnee ma say photo gis naa photo yi nga def yónnee mu ko ma defal la ci article wala ma defal la ci euh, poste donc comme sa xarit la nga yónnee ko ko parce que yaa ngi peut-être vulgariser yëri bi nga xam ne dañ la ko solal wala wala wala li nga xam ne moom mooy sa business nga koy jaay wala dara buñ ko posté ba pare jékki daal di may message ne ma dafa am sama benn xarit bu nekk Maroc nee na da nga ko neex euh, ba xam da ngay ñëw Maroc ma ne ko man waajuguma dem Maroc mu daan ne ma waa d'accord léegi maa ngi koy jox sa contact ngeen waxtaan parce que moom daf la bëgg invité nga dem Maroc ma ne ko d'accord léegi euh, trente minutes après euh, le gars m'appelé ñu nuyoo jàmm sa teg yooyu léegi day def saa yi ma messager bëgg di wax ak man lu yàgg du ma ko man wala damay nekk samay activité mu jékki craqué daan ne ma yow. xaw ma loo may jaay affaire te man li ñuy wax wax nañ ko ba tënk ko ma ne ko lu ñuy wax wax nañ ko ba tënk ko je n'ai pas compris mu ne ma déjà sa numéro dañ ma ko jaay ki ma boole ak yow daf ma jaay sa numéro te sa contact ak yow ak man ak yow si juste pour nga ñëw Maroc am fi cinq jours pour nga nekk man ci li ma bëgg waaw ma ne ko ma ne ko kon de on t'a mal parlé de moi wala tey li liñ la wax du du du noonu parce que man ki ma jox numéro bi dana ma dafa am ku gis ne daf ko neex dafa bëgg rentrer en contact ak yow donc waxuma ni kon moom daf ma jaay sa jaay numéro bi daf la jaay sama numéro waaye waxuma ni aussi dafa encaissé xaalis pour man ma ñëw foofu nekk ak yow donc kon sa xaalis sànni nga ko ndax man du du ma ci genre yooyu mu ne boo nanguwul rek keneen day nangu donc mu doon loo xamante ni tey peut-être man bi ma am ba génn ci euh, ça veut dire que plusieurs fii tombé nañ ci piège boobu après te amuñu retenu boobu donc mu doon ay mbir yoo xamante ni gars yi ñu ngi koy dund mu nekk lu ci suuf mu nekk loo xamante ni lu kenn dul wax la mais am na ci biir Sénégal fii ci lu bëree bëri. waa ji la waaw waa ji waa ji Maroc la nekk. waa ji waa ji ma linké ku siiw la fii Sénégal ku siiw la ku ñu xam am site internet am soo xoolee site sax lu ci bari ay jigéen rek lay dugal article la telle fille euh, célébrité sexy et telle. après je compris que peut-être moom c'est ça son système des fois sax dafay créer ay articles yoo xamante ni que article bat buzz la yow da nga koy xam-xam ne lii bad buzz la du dëgg juste pour vendre la fille pour fii bi gën a mën a am aura wala pour ku jigéen ki nit ñi gën koo mën a xam pour que ñi nga xam ne ay pervers lañ je je je répète ce mot ñi nga xam ne ay dañ ne ay kilifa lañ mais ay kilifa yu pervers nga xam ne loolu rek la ñuy xëy di daw pooju diw feeñ na. naa fexe rentrer en contact ak moom jaral na ma 2 millions cinq millions ñu daw ci loolu et j'ai compris que moom loolu mooy business am euh, site internet bi nga xam ni moom lay gérer da koy da koy laqatoo business am bi nga xam ni moom la nekk di def. si après je l'ai appelé mu ne ma waa ji moom moo xamul lu muy wax il s'est trompé donc fexe na ba génn ci parce que moom yabu ma moom yabu ma parce que wanu ma ko kanamu ñàkk fayda xëy na dafa foog ni euh, mën naa seede comme d'autres filles yoo xamante ne dañu nekk dans le besoin mais man alhamdulilah maa ngi sant yàlla maa ngi liggéey donc mu jàpp ni donc su ko defee ba pare man su ma ci duggee dinaa doon nit ku faible ba ba ba accepter wala ba pare woo ko ne ko nangam ak nangam te du mujj fenn mais bon bi ma ko waxee dafa rasu dafa daw ne kon le gars dafa dafa dafa juum parce que waxuma ko loolu donc mu may bëgg a yablu devant toi mais je suis sûre et parce que amaan naa beneen copine bu ko def euh, coïncidence ñu mu toog di ci expliquer naa man diw gis nga lim ma def. ma ne ko il m'a fait la même chose et j'ai compris que juumul woon nekkul koo xamante ni daf ko def parce que teyu ko li mu ko def tey na ko bu baax mais par exemple bëggul woon peut-être man ma xam euh, business am boobu muy nekk parce que fexe na tey ba nit ñi sénégalais yi respecté ko fexe na ba sénégalais yi tey jox ko cër naw ko bëgg ko ñee ko te xamuñu ni moom loolu muy def noonu euh, li muy li muy nëbb ci suuf moo ëpp li nga xam ne moom la fësal ci kaw. Mhm. si les personnes célèbres. waaw les filles yi nga xam ni peut-être ñu ngi door a dugg ci animation ñuy door a dugg ci mannequinat euh, ñuy door a dugg ci ci showbiz en fait je peux je peux dire les jet-setteuses euh, parce que ñu ci bari peut-être bu ñuy door a dugg ils ont besoin wala voilà, elles ont besoin excusez de visibilité donc moom daf lay fexe approché la pour promettre la nga am visibilité ci sitam site internet am. donc visibilité boobu nag bu la ko defee kuy dugg ci média door a dugg ci showbiz wala door a dugg ci mannequinat bëgg bëgg visibilité da ngay accepter visibilité boobu mu lay proposé mais piège bi ngay tombé malheureusement da ngay dem ba ci biir xam ni kii visibilité bi c'était juste pour moom mu am lu mu dugal ci poosam maanaam fexe utiliser yow sa visibilité wala sa image pour am lu mu def ci poosam. mi ngi noonu loolu ñu ci jot a déglu doy na pour courtage sexuel mu ngi ne xus ci biir réew mi gannaaw bi nu gisee reportage bi jokkoo nañu ak journaliste bi def reportage bi waxtaan ceeg moom kañ la ko def ak luy yillay mu def ko ak lan mooy courtage sexuel ba tax mu def reportage bi ci lañu leeralal nenu métier moom moo bindoo noonu journaliste la boo xam ne nii day def ay gëstu ci mbir yu ni mel ak yeneen yu dul mbir yii nii balu mat ay weer mi ngi nekkoon di gëstu ci lu mel noonu ba jot na sax gannaaw bi am accès ci ñi nga xam ne ñooy def loolu nga xam ne ñoom loolooy seen métier xam ndaw si ngeen dégg ñu wax moom dañ ko doon bëgg a jaay maanaam numéro am lañ jox nit mu jënd numéro ba ci ci courtier bi doon bëgg a nekk ak moom di def moom naka sudul dul noonu nga xam ne nii Sénégal ba Maroc Sénégal ba Maroc waaye moom xëy na bi muy door gëstu bi amaguloon accès ci ñiy def métier moomu waaye nee na gannaaw bi am na accès ci ñoom waaye nanguwu ñoo wax maanaam ñi nga xam ne ñooy def métier bi nga xam ne ni lii seen liggéey mooy dañuy gis jenn jigéen ju affiché wu noonu la ma ko waxee ci téléphone bi mu ne dañuy ñi ñuy gën a ciblé mooy jigéen ñi nga xam ne dañoo afficé wu nekk ci kanamu écran yi nekk ku siiw ko ràññeeku nee nañ ko ñoom ñoo koy wax mais nanguwuñ mu enregistré leen ni ñuy def léeg-léeg pour am accès ci jigéen jooju dañ lay njëkk a aborder jege la jëm la woo ci xaritoo ba nga ubbi bunt boobu nangu bu demee ba xaritoo gi sori ñu tàmbali laaj la sa photo laaj la ndax mën nañ koo estati wala yu mel noonu léeg ci métier mi nga xam ne moom nga nekk day mel ne dañuy ñëw rek pour gën la fésal gën la jàppale am na ñoo xam ne nii foofu lañ leen di jaaree ba nekkat bi ma estati sa benn photo dafa am kilifa dafa am kilifa nga xam ne sama xarit la dafa gis sa photo ne da nga ko neex bu fekkee nag permettre ma nga ma ko ma boole la ak moom am na koo xam ne bunt bi léeg-léeg noonu lay ubbeekoo ba mu boole la ak kooka te fekk nekkul booleeg xaritoo mais jël na say photo wan ko kooka nga xam ne moom loolu mooy métier moom itamit jigéen ñooñu lañ koy utal ndax moom fa mu toog mënu la uti jigéen mais day ut ku ko ko utal su ko defee kooka. Euh, am numéro ko jigéen ka ñu gisee moom courtier ba lam cay gañee ci xaalis mu gañee ko ci ndaw si nag moom bi mu demee ba nga xam ne toll na ci ñu boole leen moom dafa mujj reculer dellu ginnaaw ndax xalaatul woon ne euh, lu jëm ci wàllu njaaloo lañ koy woo jëmee ko ca loola loolu mu ne ma léegi lu bari la fii ci senegal mooy ñu baree bari ñoo xam ne nii euh, ay courtier lañ nekkul courtier boo xam ne dalay utal kër ak otoog terrain yu mais courtier bu lay utal koo njaalool nga loolu nag boo ko jàngatee fii ci Sénégal du la du la jaaxal ndax nee na ci biir waxam wane na ne réseau la boo xam ne dem na ba Maroc maanaam moom kiñ ko doon utal mi ngi Maroc laaj naa ko ci biir question ne ko ndax sénégalais la wala marocain la bu ne ma sénégalais la maanaam animatrice bi kiñ ko utaloon ki nekk Maroc ab sénégalais bu nekk Maroc la moom lañ ko utaloon ba boole kook moom noonu nga xam ne kon am na ñoo xam ne tey ña nga ba bitim réew am jigéen ju nekk fii siiw nekk ci rajo wala ci télé wala ci série wala nangam waxoon naa ko ci ay waxtaan yi weesu ne siiw léegi am na jigéen ñu bari dañ koy jënd te yu mel nii bokk na ci li tax ñu koy jënd su fekkee boo ñëwee affiché wu fii ci aaxiru zaman bi di jigéen ñu xam la dana am góor gu nekk fële ca Maroc wala mu nekk ca Dubaï wala mu nekk wala mu nekk ca France wala fu mu doon ci àdduna bi xememee la ci écran ba am benn yirim caam boo xam ne nii courtier la courtier la yirim caam ñëw fexe laa jege fexe am sa numéro ngir boole laa ko nekk bicim réew di la seetaan te bëgg la ñu bari loolu mooy seen liggéey nga xam ne tey am na koo xam ne la muy génn di dem tukki bitim réew góor gu nekk fii ci senegal moo ko jaay góor gu nekk ca bitim réew ba lépp jàll ñu daggal ko bii moom mu toog fii fayee ko xaalisam ndaw sa dem fekk waaja fa mu ko fekk ca bitim réew mu daggal ko yéem ak lépp lu mu waroog moom mu def ko ndaw sa nekk ak moom ba dellu seem jot mu dellu si lii du ay léeba ki lippoon waaye mbon la goo xam ne tey mi ngi fii ci senegal mbon googu nag nga xam ne nii mi ngi mi ngi affiché wu jàngat kook li ngay dégg rek muy xew Dubaay du ma xuus ca lay xew Dubaay la la ngeen cey dégg doy na <laughs> la ngeen cey dégg doy na walis may jaaraat naan lii ma nga caag lële ndax li may wax rek lu ma ciy wax rek dégg naa comme yéen laa cay wax waaye tey réseau bii nekk senegal jël ko nga comparé koog la ngay dégg fële xam ne waaw kuñ mën a jëlee fii ci senegal am benn courtier bu nekk fii lijjanti benn numéro étranger fële ca biti wala am étranger bu mu xamel ku nekk fële ca biti mu mën la jëli yow sa numéro boobu mu jaay ko kooka yow mu mën a waxaale ak yow ba nga nangu ngir fekki kooka lan moo mën a xew gannaaw boo fekkee kooka ca bitim réew jigéen jooju moom it kan moo ko gën a dëgër fit maanaam ki nangoo doon moom ki ñuy utal góor gu mu xamul kenn gënu koo dëgër fit góor goo xam ne mosoo koo gis lu dul téléphone ngeen wax téléphone kese xamoo ko ci ndey xamoo ko ci baay xamoo ko ci maam xamoo ko ci maam Matar ab dërëm dong kott kese tax nga mën a déplacé wu réew ba réew fekki ko ñi déplacé wul fii la ñuy nekk ci ay appartement la ñuy dem fekki leen après wala ci euh, auberge ak ki hôtel ak yu fii ci biir réew mi te lépp fii lay doore mi ngi dooree ci bi nga ko tàmmee fii ba nga xam ne léegi boo gisee client buy fay lu ëpp ki nekkoon fii lu muy fay nga dem fekk ko prostitution déguisée bi nga xam ne moom la ñuy wax ba tey da ci nekk am na koo xam ne ni du gànc bu dem uti carte di gàncatu waaye moom benn gànc la bu ne professionnel la bu civilisé la boo xam ne nii utul carte waaye nag ci lu mel nii lay gàncatoo léegi ku tàmm yi cinquante mille ki cent mille ki sec fii ci Sénégal ba dégg na am na ca réewu sàngam ñoo xam ne moom ci ay juróomi million ki fukki million la ñuy tàmbalee mais danga naan kaañ la te fekk du kaañ mais ngaañ la ba tax na loolu nanu yëg ne mi ngi fii waaye gannaaw yëg ne mi ngi fii nañu xam ne lu bon la lu ñu war a xeex ngir mu jóge fii ba ku ci nekk ci écran yi nga bàyyi xel sa bopp rawatina ngay jigéen ku ciy feeñ ci écran yi nga bàyyi xel sa bopp rawatina jigéen ku ci nekk ci réseaux sociaux yi di photowu di publier nga bàyyi xel sa bopp kay def ay vidéo tiktok ak i vidéo nangam sa doom di ko def yow rawatina way jur bàyyi leen xel seen doom yooyu xam ne am nay muus yu leen jàppee jinax di leen rëbb da am na ko am na ni bu gisee jigéen ju taaru liggéeyam yépp mooy bu fekkee moom jéemu la nekk kuy jéem a am ndaw soosu noon am accès ci moom te moom courtier yooya noona la munul def lu dul jéem a jege jigéen jooju nag xam na ne client caaxaan katami kum ko ci présenté nga ne kii moom boole maak moom kii moom doxal ma ko boole maak moom ba tax na jigéen ñi nga xam ne ñooy affiché wu ngal la waay ngal la waay ngal la nañu delluwaat ci lislaam li mu leen sant te li yëpp li ko indi rek mooy génn biir toolu lislaam bi dugg ci biir ñàll yi dajeeg till yi waaw ku dugg ci ñal yi daje faak till yi lislaam dana la muural say cër sa kàddu booy wax wa qul na maarufa waxal wax ju correct bul wax wax ju sarme góor bul génn sa kër lu dul doxi farata wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal ti luule nga lànk ne damay wax nu ma solo nu mu ma neexee dem fu ma neex après jëlee ci lu la naqari dong nga ciy topp islaam dafa xam ne jigéen dafa cher yenent bi ne a awratun jigéen awra la jigéen awra la jigéen awra la awra nag dañ ko war a nëbbu mais waruñ koo affiché mu ne fa muy gën a nekkee ci sécurité mooy bu nekkee ca këram fa lay gën a nekkee ci sécurité mu ne su génnee këram rek seytaane nga ko tiim di sol nopp ya doxeel nii melal nii bàyyil xel góor ñi nàngam nangam mais jigéen kañ lay mucc ci tentation yu mel nii kañ lay mucc ci mbon gi mooy bi mu branché woo ci diineem fexe am ak ragal yàlla fexe am jom bu dul diine ja sax ngor jom jomb jombu kersa valeur yooyu nga xam ne nii sunu réew am na ko jigéen ju mu nekk ci yow doylu surtout doylu doylu ndax yéen yi tamit ñàkk doylu kese ñàkk doylu bëgg lu sa morom am nga am ko te bañ tàng di concurrence ay greffage yu cher ay cheveux naturel sama sëfa bi bi ma teg day daanu ba ci suuf ndeysaan ndekete yoo lii tax mu daanu ba ci suuf da nga daanu ba ci suuf soog di am sëfa buy daanu ba ci suuf six cent mille la sama sëfa bi kawaru jàmbur nga jëndee ko téeméeri junneeg ñaar fukk di ko tiitaroo yaa gàtt xel yaa ka gàtt xel ka am alal ju ko lew sax jëndee ji ko daa gàtt xel waxuma ak yow mi paree def lu bon ngir jënd kawaru jàmbur ci téeméeri junneeg ñaar fukk yaa ko gàtt xel di ndamoo téléphone bu bees bu génn bu nekk nga am ko iPhone 12 nga bokk ca ñëkk ña njëkk am iPhone nga bokk ca ña ko njëkk am te du liggéey ak joma la koy may waaye góor ñee la koy jox nooy def ba mucc ci yu mel nii sa moroom morom góor góorgóorlu koy góorlu di liggéeyee kës néew yow fas yéene woo cee bokk danga nga fas yéene bokk ca ña nga xam ne nii dañuy bàyyi ba góor ña liggéeyi ñu pare def ak ñoom naka sudul noonu ngir jot ci seen dërëm ñàkk doylu wata ma ne même bu dul woon lislaam ji ñu nekk sunu réew aada ji fi nekkoon ci ceddo gi rek defoon na nit mu nekk gor su am jom suy jomb su doylu su am kers waaye bi mu demee ba yooyu ñu débranché wu ci aada ju rafet nekkatul ci nun diine waxu nopp waaw ci la seetaane ñëw am ci ñun accès ba jigéen ne dafay am liberté léegi liberté dafa xew léegi ñëpp dañoo war a génn tukki ndax ñëpp dañoo war a génn am na koo xam ne warul génn dafa war a toog warul génn mukk ba tax na kon ñu dooree ci kii liggéey loolu alal jëm cay jëleek ko nga xam ne mooy ku jigéen ka alal jëm cay jëlee maanaam yow góor gi nekk courtier di fayeeku ngir faciliteel ñaar ñu bëgg a njaaloo seenug njaaloo alal jooju xaraam na ba demee ci saxiix muslim baabu taxrimu thamanil kalbi wa xulwaanil kaaxini wa mahril baxiyi bunt bi muy teretee xaraamug njëgu xaj ak weexalug njabarkat ak canu njaalookat can la ko tuddee mais mooy li ñuy jox im na xajar dana ko firi léegi xadis 1568 Mustafa nee na sallallahu alayhi wa sallam charul kasbi mahrul baxiyi wa thamanul kalbi wa kasbul xijjaami li gën a bon ci fàggu yi alal ji gën a xaraam ci alal yi ñuy gañe ñu ne li ci gën a bon gën cee xaram bokk na ci mooy mahrul yi li ngay jëlee ci courtage sexuel alal jay juddoo ci courtage sexuel Moustapha nee na ci alal yi gën a bon la bokk mhm. ak njëgu xaj koo xam ne métier mooy jaay xaj koo xam ne xaj lay jaay rek ngir nit ñi nga xam ne dañoo bëgg nee na ñooy xaj di nekk ak ñoom fuñ toll charia mayul kenn muy am xaj këram lu dul xaj buy gaar jur wala bu lay aar ci sàcc xëy na yu ni mel kese waaye pour plaisir nii rek yar xaj nga xam ne ñenn ñi viis lañ ko def léegi day jullit royee ko ci ña dul jullit xaraam na kër gum nekk sax malaaka yërmande du fa tàbbi xaj ñenn ñi doyewuñ ko dara garde lu leen aaru leen ci dara jël xaj rek takk ci kër gi pare jël buum jàpp ca génn dem ñëw loolu entre parenthèse la dafa xaram daganul ku ami gàtt daal yoo xam ne nii euh, xajala koy gardeel wala yow ay sàcc yum lay muccal ci sa dëkkuwaay ba nga nekk ci anam googu rek lañ koy maye. jaay ko tamit ku mel noonu rek la ñuy maye nga jaay ko ko bu dee lu muy yittewoo la ngir loolu bu dul loolu noonu rek kuy jënd rek ngir jënd yow it ngay jaay noonu rek ngir jaay njëgg dafa xaraam ak looy jëlee ci nàmputal alal jooy jëlee ci nàmpatal ñu lay fay yooyu am na yeneen i détail mais taxul jug waxtaan bi ibnu xajar al asqalaani ne li tax mu tuddee ko mahrul baxi maanaam mahr mahrul baxi mooy lan li njaalokat bi di jëlee njaalokat bu jigéen bi li muy jëlee ci njaalokat bu góor bi mu ne samaahu mahran majaasan daf ko tuddee can rek ngir majaas mais du majaas xaqiqi mais majaas aqli la daf ko tuddee noonu rek can waaye mooy fay ga rek la njaaloo kat bu góor bi di fay kim njaalool di jigéen loolu la yenent bi di wax rek mu me mu tuddee ko can ga nga xam ne nii ca lu dagan lañ koy joxe waaye nag du dëggi-dëggi can waaye jëmmi lam koy jox rek ci diggante góor ak jigéen moo tax mu jëfandikoo mahër li ko ci yittee rek mooy jëmmi lim koy jox moom góor gannaaw bi mu njaaloog jigéen wala bu bëggee njaaloog moom ci fàggu yi gën a xaraam la bokk te tey ñaata ñooy dundalee seen jur alal joo xam ne nii ñi ngi ko jëlee ci góor gannaaw bi njaaloog moom ñaata ci ay jigéen aka bon sa yaay ak sa baay di la dundalee alal ju dagan alal ju lew yow ñoom ñu dem ba tële retraité nanu lan ma noon mënatu ko ngay dem di njaaloo ñëw di leen jox yaa tooñ yaa def lu bon rawatina say doom da nga gis fam nee na dafa sëyeey taseey am njabooteey amul lum leen dundaleey tax naay mu naaneey day njaalooy ngir dundaleen hmm. awoy samba lu tee nga takki jom lu tee nga takk sa sër am jom sa morom yi jaay ndox ca mbedd ma danga leen a gën sa morom yee dem syndicat jënd màngoog màdd yu ni mel da nga leen a gën sa morom yay dem di jànq di liggéey weer wu dee ñu fay leen dang leen a gën sa morom yay dem di fóot ñu leen di fay dang leen a gën lu ci bari xeeb métier la mais du awma lu ma jàppul mukk xeeb métier kese bu dee loo dundalee sa njaboot rek yàlla may na la wér a kàttan bunt yu bari ubbeeku na ngir nga mën a dundal sa njaboot waaye yàlla bu mu fekk nga mel ne tiitarukat bu mel ne kinne ci am ne yenn métier yi doo ko def métier mi nga préféré mooy yariwe di liime foo toll tàmmataal kilimaak seetaan télé ah waaw su fekkee loolu dem nga de ba gisatoo góor gu la ko jox te amoo métier moo xam ne mu la satisfaire nag léegi nooy mujj def bu la yàlla mayee taar ak buntu bu ubbeeku ci wàll googu courtier yi jege la ku nekk nga naan ko kañ nga may mayee kañ nga may may sa benn copain kañ nga may nangam ma ñu ma wax ne ñenn ñi vice la sax nekkul liggéey la ñenn ñi rek dañu tàmm kaay ma may la sama benn xarit naa la may sama benn xarit yow doo ma may sa xarit yow mayoo ma kenn yow nangam nangam non danaa la may na bu doon ci côté sëy la sax sëy ndax sëy yu bari ci noonu la takko boole la ak sama xarit kaay mu boole la ak diw kaay ma may la diw sëy yu bari ci la takkoo fa la alhamdu wa sukru waaye am na ñoo xam ne loolu taxu leen a kaay ma boole la ak sama xarit pour ngeen njaaloo boole ma ak sa xarit bi pour ñu mën di njaaloo kañ nga may may ku may njaalool ñu bari looloo leen tax a alal ji juddoo ci njaaloo ñu lay fay lu xaraam sengoor sengoor ci yu bon yim fi bàyyi la bokk sengoor mooy faciliter jigéen ñi jox leen kart ñu mën a dem jaay seen bopp dem bam doon métier ci jigéen fii ci senegal mooy li may wax tout le temps féministes yi doo leen dégg mukk ak seen wàcce ca ci yu bari seen làmmiñ yu rëy ñuy revendiquer pour carte yi ñu jox jigéen ñi ñu jaay seen bopp na dakk sa waxee rek ñu ne noo seen bëgg-bëgg naa ah. te am na leneen lu doon seen bëgg-bëgg nga taxaw lànk ne loolu noonu la waru la nekk lan moo tax mooy seen bàjjen yi leen di dundal santaguñ leen ñu xeex jigéen ñi jox carte ñuy jaay seen bopp alal jooja juddoo ca nag la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ci alal yi gën a xaraam la bokk kon mbokk jëmmi courtage sexuel courtier bi lim ciy gañee xaraam na moom ku góor ki boole ku jigéen ak jigéen ngir muy moy bu ma tuddee góor ki def reportage bi moo ma tuddal rek ay góor la ci waxal yuy liggéey liggéey boobu mais sa xel mën na la jox ne mën na doon tamit jigéen waaw mën na doon jigéen nga xam ne moom mooy def métier moom noonu la moom mooy ut yeneen i jigéen di leen boolee ki góor te loolu am na am na te léeg-léeg sax foofu la buntu di gën a yombee koo xam ne am na ay xaritam yu bari yu jigéen moom muy jigéen moom su bëggee def métier moomu noonu la métier mu bon moomu noonu la ci lay gën a yombee am na ay xaritu autorité ay boromi dërëm yuy fo te li ci ëpp ñaareel boromi alal lañu ñu ndeysaan am alal soo gisee jigéen joo bëgg au lieu que nga dox dem takki ko waaye nee ngaay sa jabar benn jabar nga ko signeel doo takk ñaareel doo takk ñaareel mais di njaaloo ki fukki fukk sukkandiku rek ci sa alal <laughs> baax na yaa ngi posone sa alal de njaaloo day posone alal di posone wér gi yaram di waral gàtt fan deegu ñaaw di waral mbugalum bàmmeel di waral audi audition bu tar yowmal xiyaam di waral sax ci safara di waral merum sunu borom tabaraka wa lépp njaaloo daf koy jur bànneexu juróomi minute war na la jëral war da ko jëndeeg mbugalum yàlla mu dul dog ak meram gàtt fan ak deegu ñaaw da ko ko jënde te bari nañu amoon amatuñu bari na laa wax du ma ne ñëpp te bokk na ci li tax ñu ñàkk mooy yor ba noppi mooy bari na jigéen ju amoon taar ñàkk ko du ñëpp ñenn ña lu leen ko xañ mooy am taar ba noppi mooy ndax ki am taar di mooy bu demee ba mu yàgg yàlla day jël lëndëm sànni ko ci sa jëmm ji du diwoy taxati lëndëm googu dëñ du dermatologue bi gën a ay ci àdduna bi mooy taxawti taxati lëndëm googu dëñ c'est fini yàlla day fay sa taar kenn mënatu ci dara te njaaloo bokk na ci li koy def nga jógee ca nag jëlee ca wéradi goo xam ne nii après da ngay faju sa giirug dund lépp njaaloo daf koy def nga xam ne virus la bu bon a bon buy tàbbi ci yaramu doomu aadama mais bi nga koy def nag dootu ko doo ko yëg kam xasanat ladatan lil mar'i qatilatan min xaysu lam yadri anna summa fi dasami léeg-léeg nit di naan soow mu neex lool fekk dañ ko posone bi muy naan muy neex du yëg poson ba waaye ay bu demee ba géex ci lay yëg poson ba léeg-léeg conséquence li ngay jëf bi nga ca tollee di ko def doo ko yëg bi nga wéree di jéeg ci avion yee ko wàcc di moyee ko ñëw góor gu nekk nga gisee moom jigéen ju nekk nga wéet moom am wér ak kàttan doo yëg li ngay def bonaay bi waaye baax na ba musiba yi dajaloo rek ba tàmbalee manifesté wu c'est fini jeex na médecin mënatu ci dara sëriñ buy ñaan mënatu ci dara xanaa nga daw dellu ci yàlla tuub tuub gu sell dellu ginnaaw bàyyi ko carrément yàlla nangu la tuub gu sell googu nag tàmbali nag di sekk dëgg yooyu jamu woon ci sa yaram dëggu bàkkaar yooyu jamu woon ci sa yaram kon loolu mooy point bu njëkk bi mooy jëmmu njëg gi dafa xaram beneen bi mooy lislaam dafa tere góor ak jigéen sax di weet ba yegg ci njaaloo wéetaay bi rek lislaam daf ko tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na jigéen bu mu wéet ak lu dul dafa ànd ak koj armalam xadisu buxaari ak muslim tabaraan yi ne yenent bi nee na mooy ci leen wéet ak jigéen yéen góor ñi bàyyi leen di wéet jigéen ju leen daganul maa ngi waat ci buur bi nga xam ni ci loxoom la bakkanu muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk góor du wéet jigéen mukk illa daxala cheytaanu baynahuma lu dul seytaane dugg na ci seen diggante tabaraani wax ci beneen xadis na yenent bi nee na nit kiy raj-raj look mbaam xuux bu taq ripp ak ay potoxo moo gën muy raj-raj loo mbaggam ak mbaggu jigéen yoo xam ne nii daganu ko beneen xadis yenent bi ne ñu jël ràbbu daaj ko ci sa bopp ba mu jeex moo gën ngay laal jigéen joo xam ne nii daganu la lii yépp li muy wane lenn kese la mooy diggante góor ak jigéen lislaam def ci fiir jëmmu wéet ga rek lay tere waxuma ak teg loxoy laal ba yegg ci njaalu jigéen ju xam loolu góor gu xam loolu mooy ki am ak ragal yàlla mais boo ragalul yàlla lu la neex def soo amatul kersa ni ko yonti waxee ci benn xadis isa lam tastaxi fasna ma chita isa lam tastaxi fasna ma chite soo demee ba amatoo looy ruus lu la neex lu ne mën nga ko def lu ne mën nga ko def noonu nga koy firee mais pas defal lu la neex comme demal nga def lu la neex waaye boo demee ba amatoo looy ruus lu ne man nga koo def waaw te léeg kersa mooy dañ ci ñenn ñi ba noppi ñu soog di ñeme yenn yi waaw ñeme appartement yi ah nangootoo dëkk kër famille bàyyi yaay ak bàyyi ah, bi bunt yooyu ubbeekoo tey jigéen ñu bari jàpp ne dañoo war a uti appartement te fekk ngor jom jomb-jomb kersa lalu ko diine ju mat lalu ko waaw après liberté bunt ba ubbeeku rek ndax ragal yàlla ak jom ak jomb-jomb ak valeur yooyu mooy tax nit ki jomma njaaloog def lu bon mais bu du loolu ah waaw góor gu fëgg sa bunt nga ne ko entré ba tax na loolu nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel sunu borom tabaraka wa taala nee na wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ithmi wal udwan yow miy def courtage sexuel di faciliter njaalokat bi ngir mu njaaloo moo ne de yow sa borom noonu na la booy dimbalanteeg nit sa xarit sa xame na nga dimbalanteeg moom ci mbaax ak ragal waaye bul dimbalanteeg moom mukk ci mbon ak luy jur bakkar dañuy wax ne addaalu ala alxayri ka failihi kiy tegtale lu baax yaa ngi mel ni ku koy jëf Qurtubi nee am na ñu ne addaalu ala charri tamit ka saaniihi addaalu ala charri lu bon mi ngi mel ni mooy def lu bon maanaam courtier bi yombalal njaalokat bi njaaloo mi ngi mel ni mooy njaaloo kooka yéen courtier yi yéen courtier yi kon yi def courtage hmm, yéen a ngi dajale bàkkaar yu bari jëmmi alal ji ngeen di gañee ci diggante bi xaraam na waaye ku ngeen booleeg jigéen mu njaaloog moom wala yow jigéen nga boole ko góor mu njaaloog moom yaa ngi mel ne yaa njaaloo kooku moo xam courtier bu góor bi la wala bu jigéen bi la koo boole kenn ñu njaaloo mel na ne yaa njaaloo kooku bind na lañ la bàkkaar boobu dèjà beneen bi mooy jëmmi alal gañ ca gañee di ko lekk mu nekkat lu xaram te mbokk yi ciy alal ju xaraam ak bon hii alal ju xaram moo lekk ko gën a bon lekk ñam wu forox lekk ñam wu nëb ba saxe lekk alal ju xaraama ko gën a bon ci effet yi muy def ci doomu aadama ndeysaan ñu bari nag xamuñu ko <laughs> aka bon am na alal yoo xam ne ku fexe ba mu dugg sa biir sa fini jeex na da dellu ginnaaw ba ba ngay faatu dangay dellu ginnaaw ba ba ngay faatu luxe boo dundoon ci alal ja fàtte nga ko li tax nit ki war a ragal yàlla ta tegu ci yoon di def lu baax lu dagan di jaamu yàlla di sellal bokk na ci li tax nit ki war cee góorgóorlu mooy loo am ci àdduna ci bànneex benn biir buy métti wala bëñ buy metti kese bu la songu deux minutes nga fàtte loo mos a bànneexu ci àdduna du lekk du naan bànneexu lal du dara métitu deux minutes rek nga fàtte yëpp ana moog sukkuraat wa kayfa alxaal ida nazala dayful mujtah wa ma lahu qirran illa arwaax la maam Cheikhul Xaaj Malik wax ay fu ñu ay fu ñu bu nu gan-ganesee goo xam ne ni loo ko teralee lu dul ruux du ko jël gan googu bu nu ganesee fu nu jëm subhaanallah kon mbokk yi kuy dimbalanteeg nit ngal lu baax ak ragal yàlla waaye bàkkaar ak luy jur nooneel sunu borom nee na bu leen ci dimbalante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo firi al ak al dañ ko laaj ne ko lan mooy mbaax ak bàkkaar yenent bi ne albirru xusnul xuluq mbaax mooy rafet jikko mu ne bàkkaar nag mooy li nga xam ne mooy ñux-ñuxi ci sa dënn bi maa xaaka fi sadrika wa karihta an yattalia nga bañ nit ñi gis ko looloy bàkkaar looy def bañ nit ñi gis ko di ko nëbbu jàppal bàkkaar boroom alminhaaj say muslim al hajjaaj mi ngi firi maa xaaka fi sadrik mu ne mooy li nga xam ne daal mi ngi ñuux ñuuxi ci sa xol bi nga ciy dengi dengi sa dënn bi daal ubbeekuwu ci nga am ci sikk sàkk daal loolu daal jàppal ne mooy bàkkaar nga naan lii ndax baax naam baaxul yenent bi ne jàppal bàkkaar a ngoog mbokk yi fi ñuy daanilee suñu waxtaan mooy ndax may nañ jigéen moom rek mu jug tukki tontu bi mooy déedéet ba ci aj màkk ba ci aj màkk indi woon nañ ci texte yu bari mais waxtu mayeetu ko ngir ñu jàng ko gis nga aj màkk gii nga xam ne farata la mayuñ jigéen mu tëb rek àndul ak kenn dem na mi ngi aji ajug farata faw nga ànd sa koj armal wala nga ànd ak commission imam Malik ay àndandoo yu wóor nee na dañuy taxawee taxawaayu koj armal koj armal mooy lan mooy koo xam ne nii tey mënulaa takk sa jëkkër nga mën a àndal wala koo xam ne munu laa takk booy dem màkk tukki yi noonu xew na ñu baree nga koy def mais du mos a baax te baaxul ku ko ji defee nga xam ne def nga lu yàlla gërëmul rek waaye amul ku la koy baaxala mayuñu jigéen moom dong mu dem ambassade ma ñaan visa ñu may ko ko mu dem tukki jël appartement moom kese fekki woo mag fekki woo rak fekki woo papa fekki woo nijaay fekki woo jëkkër fekki woo kenn mayuñu ko jigéen faw nga ànd sa ko jaar moo xam say doom nga fekki walla ñoom nga nekkal sa mag walla sa rakk sa nijaay walla sa walla sa loolu ci la la sariya di permettre nga tukki yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis yu bari ba demee ci muwatta bu imam malik baabu ma jaa fi lwixdati fi safari li rijali wa nisa ngi nettali xadis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abi hurayra la laa yaxillu limraatin tuminu billahi wal yawmi laaxiri tusaafiru masirata yawmin wa laylatin illa maa di mahramin minha daganul ci genn jigéen ju gëm yàlla gëm ne bu faatoo dana dekki muy tukki distance su bëccëg a guddi lu dul ànd naag ñii ma kenn lu dul ànd naag ñii ma tudd kenn yenn xadis yi boo demee ci xadisu euh, wala xadisu abi hurayra bii dafa tudd moom bëccëg ak guddi xadisu abdullah ibnu omar moom dafa tudd dafa tudd ñett fan xadisu abi saidin al xudri tudd ñaari fan xadisu abdullah ibnu abbas ne daganul moom góor di fekki jigéen euh, wala daganul jigéen di tukki lu dafa ànd koj armalam daganul góor di dugg ci jigéen seeti jigéen lu dafa fekk koj armalam bu ci daganul mm-hmm. nee na bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee loolu dafa am genn genn góor gu ne ko yenent bi dama bëgg aji dem ci dama bëgg a dem ci benn lël benn guerre benn guerre sama soxna bëgg a aji yenent bi ne ko bàyyi fi guerre bi te ànd ak sa soxna bàyyi fi guerre bi te ànd ak sa soxna Mm-hmm. boo demee ci almuntaqa sharxu muwatta bu imam malik babul walid suleyman ibnul xalaf al qurtubi al baaji al andalusi bi muy firi xadis bi dana bi maana tagliz yuridu anna muxaalafata hada laysat min afaali man yuminu billahi wa yaxaafu uqubatahu fi l axirati wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam an tusaafira masirata yawmin wa laylatin illa ma adi mahramin yuridu wallahu alam li anna almar'ata fitnatun wa infiradaha sababun lilmahduri li anna shaytaana yajidu sabila binfiradiha fa yughri biha wa yad'u ilayha wa yahtamilu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam illa ma adi mahramin ma'nayayn ahaduhuma an la tusaafira hadihi almasafata ma'a insanin wahidin ila an yakuna da mahramin minha li annahu mamunun alayha walmaana thani an la tanfarida fi misli hada safari duna di mahramin minha li annahu yaxfaduha wa yajri ila siyanatiha lima rukiba fi itibaaci aksari nnaasi min algayrati ala dawi maxaarimihim walximaayati lahum waxad raxisa wala waxad raxasa malikun laha an tusaf an tusaafira fi rufqati alazimati yakunu fiha nisaau wa rijal ila al ila al mu mel ni dañu koy résumé rek baa ji dafa wax foofu ne yenent bi li wax daganul ci jigéen ju gëm yàlla ak bés bis mu ne loolu ak diisal la li muy wane mooy ku nanguwul loolu day wane ne gëmoo yàlla gëmoo bispenci penc maanaam ku nanguwul yenent bi li mu tere ne waroo tukki yow kese yow jigéen te musiba yi am yëpp lu koy indi li ngay dégg ci musiba concubinage gi nekk bitim réew jigéen di dëkk góor góor di dëkk ak jigéen rendez-vous yi ci hôtel yi cinq eh, étoiles bitim réew ci góor ak jigéen ndax bu jigéen àndoon ak ku ko jege loolu dana fa xew ndax defkatu lu bon moom wéet la bëgg wéet wéetaay tey bu la kenn noon ñëwal fekk si ma Dubaay nga dem dagg ñaari billet ànd ak sarak rakk <laughs> soo ñëwee moom boo sàgganul boo ko nuyoo du la fay hmm, kon gis nga sallallahu alayhi wa maanaam waxu mag li ñaan waxu mag jamonoo koy firi waxu rasulullahi ku ko weddi wala nga bañ ko jëfe gis conséquences yi kon ku gëm yàlla gëm bis penc ci la yonent bi wax ku ko gëmul nag a ah, moom mooy def loolu bu boobaa mu ne nag wa yaxaafu uqubatahu fil axira ñu ngi ragal baaji nee na ki ki wàcc ndigalu yonent bi ba moom dong muy tukki di jigéen mën na ko jural mbugal ëllëg yowmal xiyaam mhm, mën na ko jural duma yàlla ëllëg yowmal xiyaam mu ne ndax yonent bi li wax ci jigéen bañ mu tukki moom kese mu ne jigéen fitne la wéetam day waral def lu nu tere te seytaane day am ci moom yoon di ko xiir di ko jëmee ci lu bon mu ne nag li wax ne moom kese nañ ci jëlee ñaari déggin bi ci njëkk mooy muy tukki ab diir ab diggante bu sori ànd ak kenn kese maanaam ànd ak genn góor kese nañ ci déggee loolu te kooku nekkul koj armalam beneen déggin biñ ci am mooy mu ànd ak i góori kese moom dong mu nekk jigéen ci seen biir te àndul ak ñooña koj armalam nekk ca ngir man koo ñoŋal ak fiire ko ndax nee na li gën a bari ci koj armali dañuy fiire ña nga xam ne nii ñooy ñi leen jege mag dana fiire rakka rakk fiire magam bàyyi fiire doomam sariya gannaaw ñooñu dañuy fiire ñaareel ku leen jege kooku moo tax mu tànn booy dem ci tukki yu mel noonu nga ànd ak ñooñu mu ne imaam Malik nag def nag yombal ci jigéen ji nga xam ne nii mi ngi tukki ànd ak àndandoo yu baree baree bari yoo xam ne góor ak ki jigéen ñoo ca nekk ngir aj imaam Malik moom buntu boobu yombal na ko mooy commission lu mel ni liy xew léegi nga xam ne jigéen ju bëgg a tukki day dem bindu ci benn agence buñ paree góor ak jigéen yu bare ci ne ñu àndandoo noon dem anam googu dagan na jigéen tukki ci lu mel noonu waaye yow cundum daal nga dem lay cëp loolu moom ala kulli xaalin mooy li nga xam ne nii daganul mhm. mooy li nga xam ne nii daganul léegi maxaram bi ndax dañ cee sart mu nekk ku majeuram ku majeurul sa rakk ji wala sa doom wala ndax faaw mu nekk ku majeuram déet borom mawaahibul jalil sarx muxtasar xalil moom bi muy indi wax jooju dane hal yusaratu fi lmahrami lbulugu aw yakfi fihi tamyizu wa wujudu lkifaya lam ara fihi nassan wa daahiru annahu yakfi fi dalika wujudu lkifaya wa li shafiiya fi dalika xilaaf wallahu alam mu ne ndax dañuy sart ngir ne mm, nga ànd sa koj armal faaw mu majeur mu ne a ah, gisuma ci si nag buy leeral ndax dafa war a majeur am déet waaye daal li feeñ daal mooy boo ko amee rek doy na moo xam majeur na wala majeuru loolu mooy li feeñ mu ne boo demee ci ngirum saafi ñoom dañ ci am gu wuute waaye boo demee ci lawaamiu durar fii hët ki ah, astaaril muxtasar te xaaju ñeenteel ba te cheikh Mouhamed ibnu Mouhamed ibnu Salim al majlisi ashinqiiti taalif ko dane walaa yusharatu fi lmahrami lbuluux bal yakfi tamyiz wa wujudu lkifaaya hada huwa zahiru xaalahu lxitaab qaala walam ara fi dalika nasan wa li shafii fihi xilaaf mu ne daal sartuñu sartuñu ci ki nga xam ne mooy mahram mu nekk ku majeur jëmmi am gi rek la ñu sart maanaam ki ngay àndal daal na doon ko xàmmee su su su nekkee ku xàmmee ku ràññee rek su boobaa doy na xale mën na bañ a am dix ans te fekk ràññee na xàmme na su boobaa kooku dana doy ngir mahram waaw sartuñ ci ne faw mu nekk ku majeur mais na nekk ku ràññee rek ku xàmmee mbokk yi sunu waxtu jeex na ñu delluwaat rek fàttali ne métier mii di courtage sexuel lu bon la bon na lool ci ñaari anam li nga ciy gañe xaraam na yenent bi mi ngi ko méngalee ci fàggu yi gën a bon waaye ko booleeg nit ngir mu def ak moom lu bon bindal nañ la bàkkaaru lu bon loola million yoo ci gañee privilège yoo ci mënti am ak nu mënti toll bàkkaar bi war na koo mëdd yow ki gëm yàlla waaye ndax ñiy def loolu gëm nañu yàlla fa la wax ji nekk ki ma tex di wax mooy ki gëm yàlla ki ko gëmuloon ma lay woonan le gëmal yàlla ndax ñëpp ko war a gëm hmm, kuy dund naan gëmuma ko su dee dikkee di ko bëgg a gëm soo dee te gëmoo ko dugg bàmmeel di nga réccu li nga ko gëmutoon kon yow mi gëm yàlla nga la waay nga la waay moytul utin yu mel nii ak amin yu mel nii yow sama mbokk jigéen yow sama sœur sàmmal sa bopp takkal sa sër xamal sa bopp bu la kenn dugal ci asaaloo sa bopp bu la kenn wutee soo ca tollee am na ñu lay bëgg tànn ca borom diineeg jikko nga sëyal ko te yàlla ta yéen ñiy wax ne star ngeen nekk ci écran yi télé yeeg rajo yeeg théâtre soo biis bi ay waay ay waay xeex ak seen bakkan jéem a dem sëyi fonde famille te doyloo seen borom kër ak am amam gëmm seen bët ci yeneen góor ñi buleen leen seytaane fooye de siiw gi saxul star gi saxul bul jaamu siiw bul jaamu ay écran bul jaamu star mais jaamul rabbu samawati wal ard te ki koy jaamu soo tollee ci sëy ida ataakum man tardawna diina wa xuluqahu fa zawwijuhu illa tafaaluhu takun fitnatun fi l ardi wa fasadun arid nabi nee na yow star bi yow mi ci écran yi yow mi courtier yi di wër di la rëbb di wut sa nimoro ngir jaay ko ñee ngir ngeen def lu bon lee na nee na la ay waay tànnal ci biir gaañi ku baax borom jikkoog diine ku lay bëgg nga jox ko sa kàddu sëyal ko te yàlla tax jaamu ca yàlla yàlla di la bindal yiw heure boo wéeteeg sa borom kër lii moo gën topp ciw gi di koppaatu ay sek ak ñu lay ñu lay ñu lay booleel ngay tukkeek ñoom di dem ak ñëw hmm. boo ko réccuwul tey di nga ko réccu suba ñu defoon métier loolu seeti leen leneen loolu du métier lu ngeen ci jëlee du barkeel danga gis kuy gañee million du mën a faj benn soxla am kuy gañee junni tey faji soxla barkee fajaar ak ñàkk barke alal ji ngay am bu barkeelee soxla boo am mu faju su barkeelut lum bari bari soxla yi ëpp sa am-am nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mbokk yi loolu moo doon aaxiru zamaanu tey bi di ñaan yàlla sunu borom mu defal nu ngëm yàlla ak ragal ko ba beneen jataay ci beneen tem ci aaxiru zamaan wasalaam. texeeg tànk bu gudd ak barke. ooleekalal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laaj teem yaam